nga wa inna rabbaka wa rabbuka alxafuur zu sunu borom nag nee na nit ñi li ñuy def ci kaw suuf ci xeeti ñaawteef bu fekkoon ne dama leen cay fekk ci tàng-tàng ba ñoom ñëpp jeex koon nañu law yu aaqiduhum bu leen jàppe woon li ñuy def ci àdduna bi maa kasabu la ajjala gaawe ko ne lahum ñeneen al adab waaye nag rendez-vous la ñu am foog rendez-vous ba jot mu jëflanteeg ñoom te mooy yowmal qiyaama ba fi nekk mooy lahum ñeel na leen mawidun rendez-vous te mooy yowmal qiyaama lan yajidu amuñu maw ilan benn wéeruwaay min duunihi budul yàlla wa tilkal qura yooyu la dëkk di giir samud ak aad yu ni mel ahlak naahum alag nañ leen lamma zalamu ba ñu weddee wa jaal naa def nañu li mahlakihim ñeel seen alkande googo ñu leen alak mawidan muy ab randiw boo xam ne moom lañ ci def ne buñ àggee ci randiw bi ci lañ war a yàqu e, ñëw nag ci yent yàlla Muusa ak Xadir yent yàlla Muusa boo gëmee ne sariya dong wala xam-xamatu na xakk ka yaa ngi ci njuumte soo ko gëmee yaa ngi ci njuumte limaam Sharaani dafay wax na dee deewu weew yent yàlla Moussa moo gën waliyu xadir da di nag yàlla moo bëggoon a am yi mu jàngale te xam nga nit léeg-léeg mën na am jaloore boo xam ne ki ko gën amu ko ñun ñëpp leer nañu ne rasulullahi moo gën Seydina Omar waaye Seydina Omar amoon na jaloore boo xam ne yonent bi amu ko yenn yénente bu jaaraan ci mbedd mi mën a dajeeg iblis Seydina Omar nag iblis ñi mëwut a fenk ak moom mbedd mi ko sax su jaaree fii dafa jaar fële ëllëg itam yént yàlla Moussa wér nañu yénente bee ko gën Seydina Seex dafay wax ne ëllëg yowmal qiyaama yént yàlla Moussa fay sax sikkim te yénent bi du sax sikkim te yénente bee ko gën kon nag yii ñuy jàngale ci xadir ak Moussa nga bàyyi xel ne tekkiwul ne dafa gën wala daf kaa ëpp xam-xam de yàlla moo am yu mu ci doon bëgg a jàngale tekkiwul itam ñun ñëpp wóor nañu toujours ma fii kii ñuy woowee ne gouverneur la li mu xam fii ci dëkk bi son excellence xamu ko fi te son excellence a ko fi teg seetlu noonu rek la demee. des ci jàngee yi itam ne taalibeeg sëriñ bu ñu àndee di dox ci wàllu yàlla waroo ka tekkatal waroo kaa fakkastal bu fekkee lim def xàqiqa la xamuloo ko maandu ci ba keroog mu la koy leeralal waaye bu fekkee masalam sariya nag moom mu def lu wuuteeg yow li nga xam ci sariya yow bu ko fekkee si ca loola loola téere yi wax de bu ko fekk ci lam def yow defa li nga xamoon ci sariya comme li nga dégg Seydul Haaji Maalik di wax ndeysaan mu ànd ak mag ñi di dox ba mu yàgg mu leen waa dama leen di laaj su ma yàlla nattoo woon ngeen commencé gis may def leneen lu bokkut ak lii ma leen jàngaloon lu ngeen di def comme wane na leen yàlla ñu ne ka ah, si ñu ñaanal la nga del siwaat te xam na la ñu waxoon mooy dëgg waaye boo fekkee ci mu xàqiqa la nag su sëriñ di ko jëfandikoo loo xam ne xamuloo ko te leeragul ci yow maandu ci ba keroog muy leer ci yow waaye bu fekkee sariya lu wuuteeg sariya ba tey it yow jëfandikoo sariya bu ko fekk ci la muy def te mu wuuteeg sariya bu ko ci fekk de loolu laa la ñuy jàngale waaye yéen yàlla Moussa it dafa taxaw ci bani Israël di waare waare ba dënd bi tàng benn waay bu mel ni baar rek ne ko sëñ bi dama lay laaj est am na ko la fi ëpp xam-xam Moussa ne mukk waaw ah, maa yenu ko kàkkooti wi nag maa yenu pekk wi yàlla ne ko bañ ko fi wax xam naa dara wala yëg naa dara yàlla ne bu fi amee ci gàttal mu nekk ko nu may def nag mu nekk ko ni ngay def mooy da ngay aw jën soo utee jën nga ànd ak sa taalibi boobu ñuy wax yuusa soo ànd dek moom mu gàddu sa bagage yi soo demee deme deme dem ba jën wi dekki te jën wi kat da ngaa fiiriir ñu ci añee ka reer yàlla ku yéeme la suñu kayfee ci jën wi lañuy ñuy teggi fiiriir bi jën wa de naa ak kocci loon wala mu nekk coof boog wala mu nekk saaka <laughs> saari jën yu mag yooyu wala mu nekk naawaan boog lañ jël daal fiiriir ko suñ soxlaa yént yàlla Moussa ne añ ayca ñu añ ci jën wi dem ba yàlla natu leen jën wi réer leen nag ñu fàtte ko fañ dallu woon fañ wàññi koo di ka seet si ndeka foofu la ñu war a daje xadir xadir nag bu yëlant waliyu la dégg nga ko baax a baax loolu mooy li siiw loolu mooy li gën wér euh, euh, euh, nag bañuy topp tànk ya ba fekk jën fa mu dekkee fekk fa waliyu xadira ngi toog ba mu nuyoo mu ne kaa maa ngi nuyu yonentu bani Israël maa ngi kaa fay nuyoo Moussa alayhi salaam Moussa ne ka ah yow foo ma xamee gañe nga ma di mu ne ki la fi yebal la xamal avant ngay ñëw dégg nga ko baax a baax xadir nag dañu wax ne dafa naan ci maawul xayaa moo tax muy dundani ba léegi faatoogul de dana faatu nag waaye faatoogul ba léegi mi ngi dundani moom la yàlla dénk géej gi yént yàlla Ilias moom la yàlla dénk jéeri ji ñoom ñaar aj gu ñu daje màkka loolu la yi jàngale nu dox tuuti ci yax bi loo teg <coughs> ne wayus xaala fàttalikul ba waxee Moussa yénti yàlla Moussa moo wax li fataahu ñel dongaam bi mooy Yuusa ibnu Nun neka laa abrahu duma dañ di dox xataa ab lu ko dem ba ma àgg majmaal baxare di fa dajee kaay ñaari géeji géeju xaqiqa géeju sharia wala géeju ruuma géeju faris a am di wala mu wéy wala dinaa wéy mu ko ban jamono bu yàgg lool fala maa balagaa ba ñu àggee maj maa bay ni himaa fa dajee kaay ñaari géej nasiyaa fàtte nañu xuutahuma den jën wa wañ daan añee fàtte nañ ko fattaka sa jàpp ne moom jën wa sabilahu yoonam fil bahri ci géej ga saraban ci benn mburngal mu def dekki commencé def aw rëdd noonu dox ju jubali géej ga yént yàlla Moussa nag ba mu ñëwee ba gis ko daf ne Yuusa yow am nga jaaraama yewi naa la demal nga toog ci kër ga xaar ma ki ma doon seet moom léegi ma gis ko dégg nga aywa loo teg falamaa jaawasaa ba ñu jéggee ca fanu ñaareel ba di dox xaala yent yàlla Moussa wax na li fataahu dongam ba aatinaa indil nu xadaanaa sunu añ na de laqad laqinaa dëgg-dëgg daje na ñoog min safarinaa ci sunu voyage bii safarina suñu voyage bi hada bii na saman coono bu réeree mu ne ko añ ba dama kaa fàtte fañ toogoon di dallu xaala mu ne ko alaata xamal ma ida waay naa jamono ba ñu tafew di dallu ila saxri jëm ci xeer bi fa inni man kat nasiitu fàtte naa foofa alxuuta jën wa wa ma ansaanihi fàttelewuma ko nag illa seytaan seytaane dong moo ma ko fàtteloo an askuro ba ma ba fàttaliku ma ko ma fàttaliku ko watakasa jàpp na moom jën wa sabilahu yoonam ah. fil bahri ci géej ga ah. man ci kiimaan ah. ndax kiimaan la jën woo fiiril di ci añ jekki mu yàgg dekk di <laughs> loolu koy wax dëgg yàlla fa la kiimaan nag mu ne ci dugg loolu day xam naa wul na saar bu ko gisoon jën woowu moom dootu ko indee ci moom dootu ko dugal ci gaalam <laughs> eh, jën woowu bu amoon temps yi daañu ko partagé ba mu sonn zalika yent yàlla mu xaala Moussa yent yàlla Moussa ne ko loolu ñu ñàkk daal di mooy jën wa hmm. maa mooy la nga xam ne kun naa nekkoon nañu nabri di ka sàkku hmm. critères yooyu lañ ma waxoon su ma ko gisee hmm. mooy fële sëñ ba ne fartadda waññeekuwaat nañu ñoom ñaar ala ma ci seen jeexital ñoom ñaar xasasan di topp tànk par tànk aywa ba ñëwee ca xeeru nag fa daa ñoom ñaar fekk nañ fa abdan benn jaam min ibadina ci suñu jaam ñi ah. te mooy xadir fa lañ ko fekk jaam boobu ah. aataynaahu jox nañ ko ah. rahmatan yërmande min indina bu bàyyi ko fi ñun hmm. ñoo ko jox ak wilaaya ñoo ko jox ak wilaaya moom xadir lu tax ñu tuddee ko xadir nag dañuy wax ne fu mu toog fu ne foofu day naat moo tax ñu koy wax xadir mil wa allamnaahu xamal nañu xadir moomu min ladun naa bàyyi ko fi ñun yàlla ilman xam-xam boo xam ne jàngu ko fenn ñu ko ko ilham yént yàlla Moussa nag lu tax yàlla sant ko lii wax naa la lañ ko laajoon ah moo tax yàlla ne nag demal nga xooliwaat mbir mi ma am lu ma la jàngalaat foofu tuuti dégg ah, ñëw nag nu yente jàmm sante wax naa la xadir fay ko <laughs> ey kan moo la yebal fii ah comme ni ma la ko waxee léegi xaala wax Muusa wal du loolu ci tegu hal xaala wax na lahu ñeel ko moom xadir xaala wax na Muusa Muusa lahu ñeel xadir hal attabi'uka ndax du ma ànd ak yow nekk sab dong nga ci misaal ala an tuallimani ci nga jàngal ma mimma ullimta ci la nga xam ne jàngaleef na la ko nga jàngal ma ci rusdan ak yewute ak ndollant daal rusdan ak yeewute hmm? xaala xadir na ko yow yent yàlla Moussa nii ma la gisee de hmm. ah def naa ne sunu ànd dana jafe hmm. innaka naka yow yent yàlla Moussa lan tastati amuloo kattan maa ya ànd man ci ni may doxalee amuloo kattan itam sabran ci mën ci li ngay gis ci man mënuloo ko dégg nga baa a ah yénti yàlla Moussa ne ko waaw wakkate wa kayfa tasbiru xaw ma xadir moo ne ko wa tasbiru naka ngay mën a muñee ci loo xam ne lam tuxit bi peeguloo ko xubran loo xamul doo ko mën a muñ bu fekkoon xam nga ko sax tantan waaye xamuloo ko éé eh, eh, munu amoo capacité mun kaa muñ xaale yénti yàlla Moussa ne ko sa tëj daama fekk incha allah ndegam soob na yàlla saabiran may aji muñ te wala asid moom laka ñeel la am ran benn mbir dégg nga maam da nga wax na allah nag kon leen mën na caa tegu man daal loo ma sant ma def loo ma tere ma bàyyi ci martaba boobu daal mën naa ci ànd ak yow dégg ko ku baax xaala euh, xadir na ko d'accord kon ñu jéem a essayer ba xam nu mbir mi mujjee fa ini tabaatani ndegam ànd nga ak man fala tasal ni bu ma laaj dara an cheyin loo gis muñal of di sa dem ba ma waxal laka ñeel la min hu ca mbir ma zikran ak tuddu mooy loo gis daal bu ci laaj dara lu dul man maa la ci ubbee ne lii kat lii la lii lii la lu dul lii maandul ca loola fantalakaa ñoom ñaar dem nañu di dox xataa idaa rakiba xam nga nekk na donga xadir mi ngi yoroon benn waxande waxande nag ay ca Moussa commencé le tarbiya bi bokk ah Moussa yenn waxambaane waxande bi ñu départ nag dem ba ca tefes ga yént yàlla Moussa xadir daal di ayu borom gaal gi borom gaal gi taxaw ne lan la woon xadir na ko dañoo bëggoon de nga jàll ñu wàll wa ndax ñun amuñu paas mu ne ay wa loolu amul problème yéeg leen ñu dem ba ci digg géej gi yent yàlla mu xadir ne yent yàlla Moussa waxande yu ma la joxoon tijji ko mu tijji ko gis ci aw xepp mooy sémiñ bu ndaw mu nekk jox ma ko ma xool yent yàlla Moussa jox ko ko xadir xotti digg gaal ga Moussa Moussa góor gi da ngay xaru de Moussa moom fi mu nekk nii moom góor gi da ngay xaru fantalaka ñaar dem nañu di dox xataa isa rakiba dem ba ñu yéeg fi safinata ca biir gaal ga xarakaxa góor gi xotti gaal gi ñu jàkkaarloog ndox mi Moussa ne góor gi yaa am fit dëgg dëgg dëgg dëgg yow fayuloo nga naxanteeg borom gaal gi ba mu yónni ba mu yóbbaale la nga ñàkk looy def di jéem a xar gaal gi nii xaala ñoo bëgg a labal xaala Moussa ne ko góor gi ak xaraxtaxaa ndax da ngay xotti gaal gi li tuxrika pour nga labal ahlaa yow ndi nga góor gi kayaa fi dëgg nga ah yow xanaa lii mooy kaana du xalaat yow de xalaatoo liggéey def yow wóor na man mënu ma ndox nga def lii man fu ma koy waxee ji <laughs> Moussa moom ma nga commencé caalit moom laxat ji ta dëgg-dëgg indi nga say an mbir imran mu sibo sibu Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Serif dafa wax ne bu fekkoon ne xadir euh, euh, euh, nu mu tudd si la yënant la kon yënt yàlla Moussa du ko wax laxat ji ta say an imran ndax bu boobaa du réere ak nu bu waam dégg nga wax bi Cheikh moom ci fii la njëkk taxaw ne ko ala baakul xanaa waxuma woon innaka naka yow lan tasi amuloo kàttan may ànd ak man sabran munoo ànd ak man ci lii may def de <laughs> yénti yàlla na naka sëriñ jéggalu de comme ni ko gars yi defee jéggalu de góor gi jéggalu de laatu aakis nii bu ma jàppee bi ma nasit ci li nga xam ne sàggane naa ba fàtte ko ba laaj la ko wala turxiq ni bu ma tàncambal min amri ci sama mbir yi onsuran mooy ànd bi may ànd ak yow bu ma ci indil benn jafeñ-jafeñ léegi nag bañ wàccee gaal ga hmm. yént yàlla Moussa yeen waat bagage bi hmm. ñuy dox ci dëkk bi hmm. xadir romb genn gone yëkkati gone ga ba biir bi weex mu teg ci suuf ne Moussa jox ma saatu bi nekk foofu xam nga saatu <laughs> saatu mooy paaka yu ndaw yooyu rek daan tekkit xale bi ren di mu jeex Moussa <laughs> di ba mar di taali góor gi da yow ci kasa bi la ñuy dee bu fekkee da ngaa bëgg dul ci sa bakkan bi dara man bëgg naa sama bakkan bi dara man kasa bi ci la ñuy dee de ah xataa ida lakk yaadam dem ba ñu dajee xulaaman genn gone gu ndaw fa xatalahu góor gi rendi ko xaala Moussa ne ko waaw góor gi a xatal te ndax da ngay rey nafsan bakkan zakiya boo xam ne aji sell la bu amul benn bakkaar nga di ko rey ba xëy di ma nga koy rey xoolal waxaat yi ci li seen asiya waxaat la laxaat dëgg-dëgg indi an mbir moo xam ne nu ko mu siiboo siiboo siibu la góor gi yow ci kasa bi la nii góor gi tontu waaw nu taxaw saari moom du jeex te yëf yi dañ ko fi yemale tey eh, xanaa ñu jeexal xisa bi rek incha allahu taala eh, góor gi ne ko alam aqul laka xanaa waxuma woon innaka naka yow lan tasia lan tastatia amuloo kattan ma yaand ak man sabran cig muñ amuloo kattanal mën muñ lii may def xaala yent yàlla Moussa ne ko in saaltu ko ne ko laaj naa la an sayin ci dara baadaha gannaaw lii falaatu saahib nii bul ànd teeg man demal nga uti beneen taalibe mu uti beneen sëriñ xat ta jot nga mi la dunnii fi man ausral ngant luy wane tàqalikoo ak yow jot na ñiy wër ci dëkk ba nag di ut njaatige lu leen dalal ci dëkk ba ndax ay gan lañ fa fa ñiy wër ci dëkk ba dëkk buñ kër guñ dugg rek di fa ñaan yaay daara dëkk ba bañ fa ñuy dalloo nag ca boori garab ga ñu gis fa miir boo xam dafa xaw a jeng xadir ne yent yàlla Moussa joxuma sama turel bi te nga utal ma fee tuuti ay affaire ñu joyanti miir bi te nga jàppale ma <laughs> ne Moussa na ko ah njuuma na sant mu ne wele yow yaa ngi sonn sonn kër gu ne dugg nga fa ñaan fa añ ñu nga fekk miir miirab jaamul buy daanu ngaan da nga koy jubanti ah pourtant de bu la leexoon nga lu ñu tey de ne waa ji ko defee defar da ngay fay comme yow góor gi yow ministre nga xaw ma maçon nga man ma ne gi maçon nga ndekete ndeke yow lii la ko wax dégg nga fantalaka ñoom ñaar ci biir dëkk ba xataa dëkk ba nag nee ñu antaaki la am ñu wax ayla la ayla boobu waa kër yent yàlla daawud yi nekkoon is ataya ba ñu dikkee ala xariyati waa dëkk ba istataama sàkkoon nañoo lelu ahlaha waa dëkk ba pour ñu waaw eh nañ taxaw foofu di wax sadaqal azim ñu jàng fatiha ak salatul fatiha def ko hadijin saa salam di sant di ñëpp nag di gërëmati ñëpp di wax ne koor gi yàlla bu mu nekk mu mujj koor lépp loo xam ne wax nañ ko ci alquran yàlla ji lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci ñun la ak sunu manqué ak sunu doyadi ak sunu ñàkk a xam tabaarakallaahu di jégaluwaat ñëpp di baaluwaat ñëpp luñ ci jàng mu néew mu bëri yàlla na yàlla barkeel ko yàlla na yàlla guddal fan yi dolli wér yi dolli sutura yi di sant imaamu jàkka ji imaamu sayyidi Haaji Moussa saw tabaarakallaa ak mbooloo mi nga xam ne it ñoo nekkoon seen ginnaaw ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm di wax na yàlla bu mu nekk suñu mujj ak daje yàlla nañ ko yàlla yàgg daje lépp luñ ci yóotu yàlla nañu ko yàlla jotale luñ ci doon daw itam yàlla nañu ko yàlla soril bi jaahi saydil wujudi wa qiblati suhudi di wax ne sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp bëggoon nañ saar wi jeex waaye lii la yàlla dogal kon nañu ko nangu di wax wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah